ci jamono joo xam ne mbas maa ngi woy di faat ci réewu Sénégal c'est le passage ma wax ci leneen muy coowul Ousmane Sonko bi nga xam ni pëndëge wu réegul ndax ni ki démb Sonko janoo na ak taskatu xibaar yi waaye dafa mel ni Sonko fa mu taxawoon première sorteem foofu la taxaw ba léegi njiital Pastef bi ne lu njiig njaag Macky sàll mii mooy njaag yàq na ko lu mel ni xeme nag bak naka noonu ñëwaat na ci arrestation yi nga xam ni dañ ko jàpp ay militam waaye tamit li waral wuy jiwul convocation boobu ca Assemblée nationale tëjee fii yeewaay Samba li ñëpp doon xaar démb foog ne di dinañ xam aji Sarr lu mu wax àttekat yi la sax kan mooy la vraie Adji Sarr betteel lañ ci am de maanaam surprise ndax maître El ba mu génnee ca boobu audition dafa ne dañ leen teroo wax maanaam du ñu àddoogum ci dossier bi xanaa tey hmm. <laughs> xam naa man fa laay jaar sax jox leen digg daje ndéem li taw a xam yàggul nan xaarandoo koom ñëpp